Asalaamaaleykum et bienvenue dans votre émission Lu Bess l'émission qui est au de toutes les générations sur Télé Sénégal la télévision qui est en train de camper le décor merveilleusement bien partout au Sénégal oui à travers le monde toujours accompagné par mon ami mon frère le Baye le Baye noble l'artiste Waane. sérieusement. ci lan. yàlla ak moytu. ci bu fekkee maanam waane yow dafa am loo may jiñ nga danga may wax lan man mun a xam. tay say seen soo mm. am na nee nañ ma solatoo yëre wala ku la wax rek laay sol. ma ko. Tafa Kara nag moo yàq borom tuuba Tafa xam nga Tafa. Hmm? Tafa Kara ko yaa koy wax chaque tafa ah? tafa soo gisee jàllaa ah, topp ma kenn tafa kara mi nga xamante ni ci jom ji ci fulla ji ci fayda gi mm-hmm. ci mën a ñaw gi waaye nag ci liggéey gi waaye nag ci gëm suñ tubaa gi waaye nag ci yaakaar Cheikh Ahmadou Kara gi ba tudd looyee boppam Cheikh Moustapha tafa kara xamoon ni jeune jeune yu mel noonu dañoo jara jàppale dañoo jara wone ngir nag euh, maanaam ay soñña leen ci seeni moroomu jeune ngir ñu xam fi ñu war a teg seen tànk man daal maa ngi ci tafakara yaa ngi baax. maa ngi tolloo. sa yendu bi toj na de. sama yendu bi ak moom moo jeex. non mais mais mais moo ko yeb da ngaa demul ko 21. moo xam naa dootuma ko tàdd moom. daa da daa daa mën de. non wéyul wéyul instant yi damay ragal ñu copier ko wala ñu def ni moom. copier parce dégg naa benn suñ benn tata moom moo ngi commencé tata Viviane. copier mais non bu dee bu dee bu dee bu dee COP moom. COP 21 ki ko def nii ba nit ñi xam ko di ko bàyyi xel dafa fa dem. Mm-hmm. moom mooy c'est non c'est jaamaan. kat moom maanaam boo déggee xam nga bokkul bokkul. bokkul mais gis nga moom lu muy mais comme ça. non non c'est pas du caaxaan dafa dafa bokkul sérieusement c'est dafa bokkul bu dee jaamaan comme ça du musique. mbalax mi quoi mooy jaamaan man day def ay after work yaa ngi comprendre tuuti melomaan yi dem ceene gars day day kii mais ci beneen beneen high level quoi. bokkul ak bi mais bu dee wàllum. ral ki ki sa pipa ndapp gi moom. non king foofu. amul xalaat de. non sax king waaye ku fa ku fa daw rek <laughs> da ngaa bëgg <coughs> foog ne li jig moom moo jig na la. en moom de. moo ko moom sax. ça veut dire dafa indi loo xam ne Sénégal yi mun man ba ma dalee suivre ba léegi mosuma gis koy def ay yendu. ba pare yendu soirée peut-être bu amee tamit mosuma ko gis wala siiwul nii bokk. Hmm. mais su moo dina la siiwee peut xam naa ne lu leer ba leen daam nee ñu ko def. de barki démb kii def na. non démb vraiment. vraiment waaw te mercredi bi aussi day def. ok mercredi bi. incha allah bii di ñëw. Mm, waaw day def yenn foofu. dina dinañ dem incha allah. numéro 2 bi dina ko téye de. dina am ko perte place am te moom dina nekk numéro 2. numéro 2 comme léegi kanay numéro ah en daal Fallou. kan mooy numéro un. non mais mais jarul wax na Fall. aw ah damay bañ wax ngeen. Wally Seck ñu teg ma foo xam ne mooy loolu. Wally ah, Seck musique Sénégal fi mu toll nii seen génération laa wax. waaw ah. seen génération. bu njëkk bi am na numéro un numéro deux numéro trois. noonu moo am ñoo xam ne bu ñu xullee moo jëlee nekk numéro deux fu mu toll nii. kon da ngaa bëgg a wax yow bu Sidi Diop xullee moo ñoo nekk numéro deux. ba léegi tudd ma tudde. ah léegi pour lan ngeen jël moom moo jee sax def ko ay numéro de te mënut a nekk numéro ba léegi en tout man man sama xalaat sama xalaat laa wax fii ku ne am nga sa xalaat dama ni fu mu toll nii moom lii bu ko continuer fekk un mois deux mois numéro deux moom dina ko téye sa loxo. kon baax numéro deux. voilà <laughs> jërëjëf comme ni koy defee à chaque fois lépp li nga xam ne nii mooy information bu gën nekk en vogue moom la leen di indi la alors tey nag dañoo yeewu gis benn information boo xam ne euh, moo ngi circuler euh, ci réseaux sociaux bëri ci diggante kii di Ngaaka Blindé ak kii di Fatel Sow xam ngeen ni ñoom seen mariage boobu xam ne Sénégal dootuñ ko fàtte abadan waaye tamit même si mariage bi am fekk am na quelques polémiques yu ndaw tey jii tamit lañu gisaa yeneen polémiques yoo xam ne nii euh, tey xëyee nañ ko rawatina site bii di nga xam ne moom mooy mooy euh, sunu buzz daal di xam ne benn information ne euh, dafa mel ni am na ay ñagas ñagas yu nga xam ne xew na si diggante kii di Fatel Sow ak kii di Ngaaka Blindé lan moo tax ñuy wax loolu le le fait tey jii nii bu ñu xoolee kii di page Ngaaka Blindé gis nañ surtout ay photo yu nga xam ne nii photo yu bëri la comme bi mu la koy wanee noonu gis nañ page Instagram Ngaaka Blindé mu nekk noonu en noir bañ na ko sax ba 4 wala 5 publication ñoom ñoo si nekk wala sax 6 suma ma juumalee fàttee saw gis ngeen tamit yeneen publication bi nga xam ne ni amul benn photo Ngaaka Blindé bi nga xam ne nekk na si compte Instagram moom moom tamit ñëpp di posé wu la question lan moo xew seen diggante ba ñaar ku nekk supprimer sa numéro morom Ngaaka Blindé supprimer photo Fatel Fatel supprimer photo Ngaaka Blindé nga xam ne ni ñoom ñaar ñoo àndoon. qu'est-ce qui se passe parce que lii tamit forme de communication la et c'est pas la première fois ñuy gis yenn yu mel nii à chaque fois célébrité bu defee nii rek am na lu xew ñoom ñaar seen diggante ñu gis mun na jël ay exemples yu bëri bëri moo xam ni nekk Sénégal moo xam ni nekk extérieur képp ki nga xam ne nekkoon na yow en couple nga commencé supprimer ay photos ça que am ngeen ay polémique wala am ngeen quelque histoire lan moo xew ñaan ñu ko yàlla yàlla bu mu doon divorce gis nañ fàttali daal en moo ngi France. dafay photo yu rafet macha allah mu moom bu teg jeexal si moom xujja waaye nga xam beneen tamit gis nañ ko temps yi tamit moo ngoon soirée bi nga xam ne nii samedi bi passé euh, gis nañ ko foofu sa carré VIP alors qu'est-ce qui se lii forme de communication la ñu gis ngaa ko daal di supprimer photo Fatel Fatel supprimer photo ngaa xam nga li ma la wax dégg nga ci nekk supprimer nga sa photo morom. bu dul bad buzz de tas nañ te tas gi laa gën a gëm. bu tas nañ tas tas. kii du kii du kii kii kii du ko jubalati dem fa kii dootu ko ràcc xaar ko xam mani. Euh, oh, mhm. kii dootul jubal dem fa. kii dootu ko ràcc xaar ko. Ah, ndax yat ba nag day dal fam daan dal rek ndax dugub nag ci biir gën kuur a koy dëbb. wax mais li may ni xam naa dafa anormal dugub ci biir gën kuur a koy dëbb. waxumuy dama ne yow daan nga fooyee ra daaw ma lan juróom. kii fu ko dugalee ngal san waaw maa ngi dem di. waaw ñëwal continuer kon. moo tax accéléré foofu nga léegi moo tax ma ne la. Mhm. la doon jub tey jub tey dem dootu fekk lu mu ràcc. waaw léegi continuer en général. Mhm. yooyu bu amee moom neex neex gi day dakk dama la wax rek moo moo ci nekk maanaam bu dul bat bës moom. Mhm. amaay dee na affaire bi jeex na waaye <coughs> man de tas bettatuma ci kenn nag tas moom. bettatuma ci kenn kenn kenn kenn célébrité ak index célébrité ak petit modèle ak grand modèle daraa ma ci daraa ci kiiwul mooy li ñuy wax rek xam nga ñeneen a ngi tas waaye ñoom ñag ñoo tëggoon itam moo tax ñu tëggee leen ñaari boor yàlla dafa dogal ñoom la ñoom ñoom ñoom lañ xam te seen mbir a siiw moo tax lu ñëw ci ñoom siiw kenn mënu ci dara. moo tax lu ñu def maanaam mu tiir mu daal di siiw. Euh, boobu ngeen xam ne benn doyen na ko sànq mooy photo bi nga xam ne Fatel moo ngi France actuellement. bu mhm. fekkee ñibbi siwul waaw voilà moo nekk photo bii de te en plus comme ni ñu koy waxee. si wàllu kii la booy. Fatel la Fatel na de i. <laughs> vas-y. il kii Fatel la. en tout cas daal la fekk man lu ma si lu ma si. jaaraale. ngaa ko tee moom réfléchir. Mhm. <laughs> naan naan def di la fekk loolu lan wees dafa defar côté yi. Ousse dama ni le fait que tey jii nii euh, ñu gis euh, retrait yi nga xam ne nii ñoom naa def nañ ko su wax naa ko sànq day jus day jus communication lu bari bari. Mhm. Euh, rawatina maanaam nga doon ay artiste wala nga doon célébrité si loo mënti doon. Mhm. parce que photo mariage dafa sacré ba ñu sax bu njëkk ba bu ko doon jël da doon denc foo xam ne. ruqe ko toog. dix ans quinze ans. Mm-hmm. mu doon ay souvenir si yow tey jii suma réseaux sociaux loo xas ba dugal dootul dootul dañ. <coughs> loo xas ba dugal da koy daal di koy génnewaat bu ñu amul difficulté mun nañ dem si rupture wala di je ne sais pas ñaanuñu ko yàlla. Mm-hmm. waaye en tout cas daal fu si kaw. peut-être ñoom après dinañ génn leeral. leeralam parce que ni ñun fu ñu basé wu mooy seen compte yi nga xame ne nii ku nekk supprimé na sa morom. moom mm-hmm. chaque fois bu doon am divorce lay mujjee. den ku ndóobeen ray sama boo gisee lu ñun da ngay da yii dañ ko fa yàgg gis moo tax nag buñ ko gisee dañuy faral di taxaw en général couple yi ànd ci mbir mi tant que jéemuñ dëgër bopp te doyloo li ñu am te xam seen bopp ci yii lay mujj surtout nag muy couple xale dëkku leen ci kër boo xamante ni dangeen ngeen fa war a nekk ak ay mag ñu leen di soññ ci sëy booy xool. loolu si am solo waaw du ko maanaam maanaam maanaam sëy sëy la dafa am foo xamante ni bu ngeen foo tollee bu ngeen jéemuta jël seeni sacrifice bopp téyel seen bopp seeni mbir ngir demal seen bopp da di sonal yéen seen bopp sëy du benn fan du ñaari fan du ñett fan sëy bu neexoon xam nga Pape Jobaay nee na la sëy neexut ndax sëy naa mhm. Pape la la bu baax boo déggee say neexul <coughs> mooy moomoo tey bu doon da jigéen am sa liberté dem fu la neex bu ñu la ne toogal da ngay toog bul dem doo dem yow ko góor ki sax mun nga jub nekk say mbir neexul sa soxna mu ne la toogal nga toog ndax foofu nag boo fa duggee dafa am defal nga def bàyyil nga bàyyi mm-hmm. léegi nag bu dee nag dangeen di xale ni man yor ay jikko gone te du ngeen bàyyi xel lu bëri mm-hmm. en général ci yi lay mujj à cent pour cent mm-hmm. parce que day doon sëy appartement ak sëy ruq ak ay sëy copain ak copine mm-hmm. te day sensible te bu sensible rek lu ne dafa cee mën a dugg ngaa ka artiste la inter te xale yi tamit dañ koy toog <coughs> bul xalaat. te maa ngi dégg ñoom ñaar seen benn discussion euh, je me rappelle je crois que ah, fàttel ma ko doon xaw ma ngaaka ba ñu ba ñu rencontré ñoom ñaar ne lañ la ba gisee mu naan ko est-ce que bu ma nopp parce que boo ma noppee da ngay sonn parce que xale jigéen ko topp je crois que ngaaka moo doon expliqué loo xaw ma fàttel ça veut dire ba léegi xale jigéen ñi nañ ko toppee noonu. waaw mais tamit ñoom ñaar seen dund bokkul ak. merci ñeneen dund yi ngay. parce que parce que que kii jabar la dañ ko takk. xale yu jigéen ñi ñu ci bari moom dara safu leen ñoom ñafal jongal te daw rek ki ma def lii ni leen neexe ñaa ko ni man mhm. leen saf bëriwut de mhm. gone jigéen Sénégal yi maanaam maanaam ndam dañuy ndamoo sax maa def ak lii ngaaka buñ leen tooge maanaam dañoo maanaam seen xelu suufe dañoo waaye di leen saf bëriwul parce que dañoo bëggub dërëm moom chaque jour ma wax la ko fi ne la danga bàyyiwul ñaan ñaan ñaan ak bëgg dërëm ak kuñ xamanteel tey wala suba sama courant daa jeex dooma lebal li après suba ma remboursé la nangam sàngam ay dóor la danga ko juguñ ci gem boobu yaaram nit booy sekk ak moom sekkal ak teraanga ak jëf te yàlla tax mhm. mais buñ dugal gars ci yenn méthode yii ndax ëppuñ gaa yi fit ëppuñ leen expérience gënuñ leen muus Sénégal gi tolloon leen foo xamante ni kuñ nax rek daf laa neex mu ngaa ka di niti milieu pire waxuma niti milieu pire rek ñu bëgg ne naka su dunu moo déggee nitu milieu ngaa ka day gis lu ne gis ku ne nekk ku ne <coughs> gis na buñ bojj gis buñ wol gis na bu mag gis bu ndaw gis na bu xees gis na bu ñuul ànd na ci ku ne li ko saf du bëri yaa ngi déglu taaru jigéen nag dañ naan mooy sëy man dama naan taaru jigéen mooy njànku de ndax ñi sëy ñëpp màgget <laughs> taaru jigéen mooy njànku di ci ngay man di defar boo sëy <laughs> taar ba dootul bëri de <laughs> lu leer laa lay wax en tout sëy daal boo ci nekkee maanaam bi ma ci ëppal solo mooy muñ dañ lay wax jaamu yàlla la dangaa dugg génn ci benn mbir duggaat ci beneen mbir mooy lan lii ay folo woon te lii dëgg la te nit boo nekkee ci dëgg da koy dëggal maanaam lu ñëw nga ko waaye nag jigéen jigéen tey ji moom ak ñi ma ko sañ a wax li leen saf bëriwul de non daanaka affaire yi en général lu ci bëri bëri contrat lañ koy def rek après bu jeexee ñu xool ban club la ñuy demaat. surtout loolu. wala kanam leen di recruter waat après ñu nekkaat seen i mbaraago parce que dundin bi dafa dafa dafa dafa doy mhm. parce que bi ngay dund ci saahir euh, la nga mënoon en général boo xool boo seeyee doo ko mën. Mhm. waaw ñoom dañ ciy dañ ciy dañ ciy sóor yooyu ba dañ ci koy def daal yoon. waaye bu fekkee bat buzz la. bëgg naa yàlla na doon bad buzz. yàlla na doon bad buzz parce que <coughs> bu doonul bad buzz tamit ah nañu waxtaan seen biir rek yàlla jibool leen ndaxte neex na ba pare te xam naa ne saf na ba noppi. te en plus euh, ñoom ñu doon dund maanaam seen seen seen couple boobu nekkul couple bi nga xam ne nii à chaque fois leen di gis maanaam ci réseaux yi. Mhm. mais en tamit la biir part remarque bu defoon sax su fàtteel mooy daaw woon sax publier yenn photo yi même ay fan sax des fois bi naan ko euh, des partage say photo juste que ni moo ngi toogoon concentré wu maanaam si sëyam mm-hmm. donc peut mu nekk bad buzz loolu moo tax ma yaakaar bad buzz la mais tamit luy cloché wu mooy le fait que ñoom ñaar ko nekk supprimer sa photo morom te ba à chaque ñaan ñu ko yàlla en tout cas daal peut ñoom dañ génn leer bu baax a baax ak li ñu fi mën a wax ñëpp c'est juste que duñ confirmer maanaam divorce la waaye c'est juste que ni maanaam dañuy lire rek c'est le fait que ñoom ñi ku nekk suuf maanaam sa photo morom donc loolu moo tax ñuy posé wu la question lan moo xew ñoom ñaar si diggante ak kii di Ngaaka si diggante kii di Ngaaka Blindé ak kii di Fatel alors buñ paree foofu dañuy demee si leen li nga xam ne ni fu tamit li nga xam ne moo def coow temps yële ne mooy kii di Karim Xurum Xaax gannaaw bu mu génnee wax si ñii di yenn patriotes yi ñu bëri tamit commencé di ko tontu am na ñu nga xam ne sax jàppoo nañ sax dem na nag mën naan ko demal wuti damal wuti liggéey moom tamit mu daal di génnaat defaat beneen vidéo waaye bi moom dafa gën a tamit tàngalaat affaire yu baax a baax parce que dem na sax ba ni kii di Ousmane Sonko moom mbindaanam la donc le fekk que mu wax loolu ça veut toll nii moom mooy fay Ousmane Sonko gannaaw bañ ko defee ministre ba léegi moom toppatul maanaam comme ñu jàpp ne Ousmane Sonko moom mooy seen sëriñ moom c'est le contraire moom Ousmane Sonko mbindaanam la nañ dem déglu kii di Karim daal di ñëwaat ci plateau bi gën ko faram fàccee. suñuy am fulla am fayda am jom sëriñ matuma sëriñ déedéet parce que instant yi xam nga lan la sama mindaan la man naa koy fay dama koy fay muy muy liggéeyal instant yi nii di jour bi deux avril après deux avril bi président Séné bi président Sénégal Bassirou Diomaye Faye yàlla na ko yàlla may ndam may leen ndam ñoom ñëpp bi mu defee décret ne ne Ousmane Sonko premier ministre boobu la Sonko nekk nekk sama mindaan man Abdou Karim léegi nag mën na ne. boo leen gis mën na nekk yéen seen sëriñ mais comme man sama mi naan la man kon léegi nekk na Sonko xaadimul xulum xaax la léegi. léegi nekkatul léegi moom kii léegi nekkatul sama sëriñ léegi nekkul si yéen mën na nekk seen sëriñ yi mais man sama mi naan la donc moom xaadimul xulum xaax la xaadimul karim la léegi xaw ma nag comprendre ni ma bëgg c'est-à-dire yéen Sonko bu nekkee seen sëriñ man sama mi naan la man parce que fi ne nii maa koy fay sécurité maa ko géré man may fay ci contribuable bi di ko fay maa ngi def ci loolu mooy dëkk ngeen comprendre ko diw dañ koy laal kenn du ko laal loolu xewi na il faut ngeen xam ne pouvoir ngeen yor te pouvoir dafa ànd ak ay critique ngeen yaatu dënn ibbe déglu nit ñi ak nekk noonu projet projet bi bu daanoo bu fekkee dafa daanu mais ñun ñun ñëppooy daanu on a combattu des années pour teg lii nii naka lañ mën a taxawee combattre xeex ay ati ati at ba pare ñu ne léegi ñu ne dañuy dañuy projet bi dañ koy daaneel wala dañuy projet yi pour ñu daanu que mais loolu yëpp moo ko dof la sax loolu yéen n'a pas sens ça sens taxaw ne non Sonko dafa euh, euh, le projet Pastef ñuy ñaan pour mu daanu te ñu xeex a xeex a xeex a xeex am ñu bi seen bët di xool ti mu daanu yàqamti mu yàqu non incha allah du yàqu tellement gëm ni ñoom dañuy réussir parce que yéene bi la. yoon ci alhamdulilah salaa salaam musul génn diggante Makka ak Medina te diine bi wër na àdduna lu ko waral parce que yéene bi la dafa am yéene yéene moo rafet damaa gëm ne Ousmane ko yéene moo moo koy jàppale parce que yéene bu rafet la am bëgg na Sénégal. acca mu ngi noonu kàddu yi nga xam ne ni kii di Karim moom moo koy wàccee daal di koy euh, def benn live bi nga xam ne ni doon tontu ñii di patriote yi jàpp na ni fu mu toll nii naat euh, Ousmane Sonko am na yéene pour dafa Sénégal te moom du wedd benn yoon nekk Ousmane Sonko yéene boobu ba léegi moo koy tenir amul lenn li nga xam ne nii maanaam euh, lu ñu mayoon Macky ko wax te tamit waxaat na ko ko waxee si ay man fu mu toll nii nag Ousmane Sonko mooy sama mbindaan parce que mooy sama parce que moom mooy liggéeyal. kàddu yooyu nag naqar yu baax a baax ñi di patriote yi Ouza dégg nga ko baax. mu ne Ousmane Sonko. mooy mindaanam léegi. bu bëggee mindaan na ko na ko na ji teg ko këram te di ko fay weer bu bëggee mindaan. xuuru xaar xaw ma xurum xuuru xaar wala lan la. xurum xurum xaar. lan Karim Gueye. <coughs> bu bëggee mindaan. day dem rond point six am na ñu fay toog ci suuf mu xool kan la ciy jël bind ko di ko fay weer teg ko këram. mais moom mooy fay Ousmane fayu ko ku yorul loo lekk nooy fay. moom day liggéey nee na joxe dépense bu mat rek wax na fu muy liggéeyee. Ah, moom loolu affaire la. <laughs> toog muy dox toog muy dox la peut-être moom liggéey. fu muy liggéey la woon bu fàtte. Ah, ba léegi peut-être ngi si yi. ban texte moo fi réussir bu mu toj. ah man je suis pas trop rap hmm? ah, ngi toj game bi. Dip Doundou Guiss a ngi toj game bi. bu dee génération bu yàgg it fataang fi ba léegi. yor di ko yëngal. kilifa bu yaanaama rek caat buñ génnee barki démboo Ndiaye ñëpp a ca ah. Hmm. ku ci mel ni DJ Awadi ak keneen ak keneen. ñun de xam nañ leen moom te mu ngi mu te ñu ngi toj jéem bi muy démb muy tay ci yam gis nga nit doo soxor doomu aadama doo soxor te dangay nangu ndogalu yàlla sunu borom ci nit Ousmane Sonko du sunu président loolu faa mu leer ci boppu nit ñi ñun xam nga kan mooy suñu président mm-hmm. Basirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Diakhar Diakhar Diakhar moom Faye. Hmm. kookooy sunu président. mu am gouvernement jël Ousmane Sonko def ko premier ministre. Hmm. mu ànd ak ay ministre mooy bu naan garab. Diomaye mooy garab bi. Hmm. ñoom Ousmane ak ay maritaw ñaan ak. keneen ak keneen ñooñu ay baranche leen yaa ngi déglu mm-hmm. nit dangay ngay fexe nite ñii defuñ fi diir bu ñu leen di jëmee baaraamu tuuma ak di leen joxoñ mm-hmm. fii ku dul moom ku liggéeyal ci suñ dëkk bi ñu wax ak yow ndax ñi fi nekkoon ñu jàpp ni liggéeyuñ moo leen fi jëlee mm-hmm. am na yenn yoo xamante ni wax yoo xamante ni waxu terre à la mais moom activiste la am na droit à chaque fois activiste na doon des activistes fum ne nii nag fu mu ne nii tembe tembe na fexee doon des activistes <laughs> ndax fii activiste fii lu luñ fi acti activé guñ fi lu tax nga naan activiste. ah moom nee na amuñ temps bu ñuy toogee di xaar gars yi amuñ amuñ moom moom du moom moom joxe temps. ah moom mooy Sénégal activiste. waaw du moom waaye du moom mooy joxe temps. moomu moomul keneen ak keneen ba yor di ñu jox temps ñun ñu ngeeg suñuy montre ku amul montre fu mu ne nii yor nga téléphone même bu dee bu chinois bi boo réglé heure da lay wax heure bi jot di nga xam temps bi jot. mais il est temps gars yi activé ko. il il est il est temps bul tuuf yeeg lépp ak activé ba ci infrarouge na ñëwaat boo xool waaye du moom mooy joxe temps moom ndax amul temps ku déggu temps nooy joxe temps ah nañ bàyyi dof dof lu gi alors bu ñu bëggee dara wala ñu wax leen nangam sàngam rek soxlawul dara. wallaahi du dëgg. non man jàpp naa soxla du dëgg de moom réew moo tax muy xeex ma ne ko ci du dëgg de bëri na ñu naan réew de seen réew poosa leen ñor de ma ni la bari na ñu naan réew mi réew mi réew mi réew mi seen réew poosa ñor waaye du seen réew réew nii senegal njaay gii yaaram moom moo nit ñi duñ ay dof dafa am yoo xamante ni nit ko bu yemee maanaam bu miinee sa kàddu yab la dafa am wax yoo xamante ni après sax day nduru soof ak soxor xam nga fu mu ne nii foo toll man maanaam kuy wax soññ pour ñu liggéey ci njub ak ci dëggal jubal leeral gañ woote waaye ne leen bu metti wala mu neex ba ngeen fàtte li ngeen bëggoon ci ñun bañ bàyyi leen xel fu mu ne nii ku leen di soññ nañ leen di soññ rek nan la ñu góorgóorloo ba léegi soññewul soñ yi ñoo bokkul peut-être yow sa caractère ak caractère euh, maanaam yow du ngay soññee ak kanam xol karim xun xax nu muy soññee ak keneen ak keneen nu muy soññee du benn c'est juste ça peut-être moom lañ yàpp wala moom mooy wax mooy peut-être te wax te moom moo dëgër. léegi lan la léegi fii fii fii Sénégal maa ngi jéggulu booban tey lan moo fi jaar wax non damay lay laaj question boobu bi fi euh, Diomaye Faye nekkee lii ba léegi lan moo fi jaar wax. ah gars yi nee na seen seen seen seen kii keroog am na benn final bu ko wax nee nañ ñoom. dañoo bëri wax de. Hmm? ak defaguñ dara dañuy wax rek gaa ngi wax de. léegi fii fi mu ne nii yow ñoom am nañ fi hmm? am nañ fi weer. ñoom amaguñ weer léegi amaguñ fi def na ay ziar sax <coughs> defaguñ sax ziar si kilifa diine yi. je crois que tey tey la tey la kii Bassirou Diomaye Faye di dem fële sa Touba. <coughs> ma ni def nañ fi weer ñoom. non. xam nga defuñ fi weer. Mm-hmm. moom ñaata lañ ko fal nii cinq ans. léegi ku ñu fel cinq dafa goo weer lu ngeen di wax damay laajte cinq ans cinq juróomi at kii defagul sax juróomi weer defagul weer weer weer weer looy wax damay laaj rek ci ci yëfi nit quoi ci xel koo xamante ni kii dañ ne juróomi at dina toog ci réew mi defagu fi weer lan la fi mën a defar nii ci lan lañ tolloon prêtewul serment mhm. ñu pare passation gars yi di ko jël léegi loo loolu du jàll ba ñoom ñoom ñu canaliser wu liggéey bi ñu ne tàmbal ne léegi léegi lan la moo am na yoo xamante ne reewande la buñ maanaam buñ dof dof lu bu buñ jël foog ni suñ xel yi ñun dañ ko tëj gars yi di dof dof lu déedéet am na yoo xamante ni kii dafa jël 4 avril nu joomaay def solu yére olofam est-ce que est-ce que dem na fee fi daan défilé. <laughs> def noo amul. waaw man dama lay moo tax dama lay wax rek même bu tombé wutoon koor amul 4 avril lu fi tombé woon koor. Mm-hmm. def nañ ko wala defuñ ko. non bee paas defuñu ko. Hmm? bee paas defuñu ko. maanaam man ndax amu amu ko fi woon boo déggee xam nga defu ko fi woon xam nga moom ni mu ko defee ca palais bala rek. Mm-hmm. xam nga amoon na sax ñeneen fu ñu demoon am lu ñu si représenté mm-hmm. mooy temps ba amu ko. pare toog. mais sa moom tamit dafa du du question dafa nekk maanaam suróolam. bu dee. kana waaye ba kii ban rôle lañ ko jox ba mu ciy nekk yow. activiste bi acti nee naa la nee naa la na des activistes activiste xewagul nii nii nii. Cheikh Sadibou ñu ngi lay bu baax a baax. ah waaw waxeertu waxeertu sama xarit bi Cheikh Sadibou. waaw ah. maa ngi koy béggee. fu mu ne nii activist xewagul na des activistes ba ci kanam. xool la lanay xew fu mu ne nii ku ne activiste rek da ngaa réew ak bëgg bëgg wax ju bëri. mais est que tamit d'une part d'autre part tamit <laughs> la la la war a wax sax est-ce que amul raison le fait que tey jii nii pacifiens yi bëri jàpp nañ ni képp nga xam ne nii xuru na Ousmane Sonko wala wax na Bassirou Diomaye Faye dara lañuy ñuy dal si kaw bu ñu ko continuer nii kat. ñoom hmm. lu doon bañ. dëkk bi dafa am dafa am liberté d'expression. ku nekk am nga boo am boo amee sa xalaat. daal wax ma ne la Ousmane Sonko ñoom fu mu toll nii moom la ñuy bañ allahu rabi dina dégg ba dégg pour dégg rek mooy li ma la waxoon fii mooy li ñu doon wax keroog ci wàllum tuddee ma ne leen wàcc drapeau bu ne dina lañ ko fi tuddee moo ñëwaat fii Ousmane Sonko dina dégg mu koy neex mu koy naqari. Bassirou Diomaye Diakhar Faye mhm. day dégg. mu koy neex mu koy naqari xam nga lu tax moom moo boo defee couleur bu ñuul am na ñoo xamante ni préféré wu ñuul di dinañ ne bëgguma ko woon neex naqari day am te ñoom ñu ngi koy xaar pare nañ ko xam nga lan mooy l'essentiel mooy li leen fi tegee ñu def ko maanaam jikko Sénégal nag moo demee noonu mooy la ma la doon wax del xool am na ci ñoo xamante ni tey ñu ngi dingat ku wax te bientôt léegi ñooy bokk ci ñiy xas suivre nag waaye dama la ne bañuma loolu mais dafa teel ndax xamaguñ fu ñu jëm ñuy def ñi kii war a def cinquante dafa ko fi weer amoo looy wax looy activer laa la amoo loo comme comme Karim ki war a def juróomi at defagu gu fi weer ñii toll ci passation di xool ni ñi ñi am na sax ñu génn guddi ah des na am na sax ñu defagul passation moom moom xeexam bi xeexam boobu seen bokk. ak ah. am ne ñoo ñoo ngi prison donc. Ah. tamit nee na am am na sax ñu defagul passation nañ xaar. non ay booy yu nekk prison wak booy yu nekk fële ak nangam sànq lan leen def ba nekk prison. moo mën a biggee Diop. ah tamit maam la alors bu ñu paree foofu bu ñu paree foofu nañ dem si leen li nga xam ni moom tamit moom moo nekk euh, merci beaucoup Bigidi nee na ma euh, kii nu mu tudd suñu président bi le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye vient de quitter Dakar pour Touba à l'instant. yaa ngi àgg ak jàmm yoonu jàmm yoonu jàmm. alors buñ paree foofu te leen li nga xamee ni mooy xewoon bële samedi bële passé fële sa Allemagne muy diggante kii di Adamo ak kii di Umaro xam ngeen ni aadamoo yàgg na yàgg na tuuti dafa xaw a changé tuuti xar karam c'est-à-dire changé vestam di yàq lu mel ni xamee kii di balaa ko Seck gannaaw ay événement yu bëri yi nga xam ne ni jànn na fi bu mu demee màkk bu ba euh, digganteem ak ki nga xam ne ni euh, mba magam ji gaañoo loolu yëpp Adamo yëg ay kàddu jëmale si Wally Seck jàpp ne moom da koy wax dëgg waaye dëgg yoo xam ne ñu bëri tamit nanguwuñ ko ku si mel ni kii di Omaro moo tax keroog ba dajee fële sa Allemagne asalaamaaleykum maaleykum salaam kur fa ñu commencé taxal naa si ba daal di Omaro daal di koy dugal ku ba gis ngeen Adamo moom di wane tuñam boobu daal di toj. si loolu nag Adamo naqare lu ko torop torop waaye moom jàpp na ni lu ko naqare woo yëpp neex na ko parce que kii di Wally Ballago Seck dafa ko jëlal défense dem na sax ba ni Omaro ne ko kii bu ko soxla loxo laalati ndax yaa ngi may dégg mun ko waaw <laughs> waaw patron maa ngi lay dégg bu baax a baax xanaa moom loolu la wax alors na di ñëwaat si bi après daal di waxtaanee ak kii di Ousmane Ndoxoy nii. mu ne ko ah mu ne ko ba dégg li ma la wax Omar ne ko waaw mu ne ko bu ko laalati barke Serigne Babacar si moom waale billahi wallahi wa wax jooju nag dama tuuse billahi ma dem ne ko waali bu fekkee dama laa def dara loola métti loola métti maa ngi lay jéggalu. mu daan ma déedéet yow yàlla nu yàlla jéggal ñun ñëpp daal di dem Omaro tey jii dóoruma dóor yu fort mais tey jii mënoon naa ko indil problème tey jii hôtel bii nii Wally Seck fa la nekk de centre Omaro du nit ndax bu doon nit la bu Wally Seck bu jógee moom ànd ak moom Allemagne fii kenn du fi xeex ku ne xam ne Europe ni muy demee amul doole man kayitu fii laa yore Omaro bu ma ko woowaloon policiers yi du doy barki se mën nan koo interdit mën nañ koo yàqal mu bañ ñu ñëw Allemagne mën nañ koo yóbbu fii si Allemagne yi danoo sévère dana ñëw téye la di nga dem par force ndax yaa tooñ caméra yaa ngi fii léegi nag waale moo tax loolu lépp defuma ko ma bàyyi lépp parce que hôtel bii nii fi la waale nekk rus naa man woo ay policier pour mu ñëw ci hôtel bii waale nekk pour benn omoro bu ma dóor wala benn omoro bu ma gaañ barki Serigne Babacar si rus naa ko mais mën naa ko mënoon naa ko def yor naa kayit yor naa lépp dan maa tooñ mënoon naa def lépp mais defuma ko parce que ci jëmmi moo tax defuma ko man du ma def loolu. acca mu ngi noonu diggante Adamo ak kii di Omaro fu mu toll nii moo xaw na tàng loolu loolu alors Ousse Omaro fu nii garde corps la wala euh, communicateur traditionnel bu Wally Seck la wala sage de com la. non non non Omaro de daa xam ni koo war a noq ma boo ko gisee ñuus ko rek wax ji jeex. Ousse xam na mooy sa problème. Euh, man des fois dama ni Omaro xam nga kan la. Hmm. koo xamante ni lu ko naqari nga koy jaay maanaam bànni nga. wala mën nga wax bu ngeen tajee mu ñuus la ba nga duul. mais est-ce noonu la war demee. man de bëgg naa li def de saf na ma waaw ah, neex na ma neexu la yow. neexu neex na ma. <coughs> yow neexu la waaye man neex na ma. waaw. kuy jaay bari wax di jaay rey gat ne da nga ah, yow mën yaay courtier yaay lijjanti mhm. yow ñu ñuus la ki nga daan taxaw di ko saaga ay ndey yu toll di ko wax yu bon ne da am fit dangeen ngeen jàkkaarloo yu fi góor a fa xew rek mu noq la ñun li fa xew dëgg xanaa xamoo ne waxuñ la ko de ñuus yi noq gi. non eh, kay eh, eh, ay ay benn góor lañ la woon naan la nii rek pour won la benn si waaye ñuus ba mu tëdd. loolu dafa am. Ah, waaw waaw noq kañ. noq ñuus. mais bu fekkee def na ko ti wàllu sec ti du dëgg du dëgg de du dëgg de ba léegi mooy fen da dul dëgg ba léegi mooy fen moom. ba léegi moom mooy fen yow lan nga dégg Omaro wax booban tey dama lay laaj. Omaro ko waxagul woon voilà sëñ Bada mi doon critiquer ci coow li Omaro ku defal vidéo sëñ Bada nuyu ko ziar ko sant ko gërëm ko ah Omaro ba léegi déggoo mu wax eh Omaro ba léegi déggoo ko mu wax de Omaro daal da ko doon wax. toog sa écran di ko saaga ay ndey yàlla dogal na ngeen jàkkaarloo góor a góor mu noq la mu ñuus la mais waali tamit da du dëgg ay fen la waali dalul ci kaw kenn yow yaa wër di jooy di saraxu ba demaat ci hôtel ànd ak sa jabar di sàkku ay photo waaw parce que boo gisee vidéo wala wala euh, ñun ñun ñun duñ ay dof de vidéo moom wax dëgg yàlla wax boo gisee euh, sira bu sira bu nga xam ne Wally Ballago Seck ànd nekk ak kii di jabaru Adamo bi da xool ne waaye sax nekk à l'aise sax. déggoo li ma la wax. mel ku yaaram fii ku nekk mën nga yor sa làmmiñ ubbi sa gat naan ba ma defee ci kii après bi ma kii niwee fii la ma mujj ne c'est la même famille nangam sangam. dañ laa noq ba nga watatu. jaay la réew gangster. Umaro mu mu doon xas ñaan ko borom nangam sangam di naan kookoo la ñuus moo la noq day leer dalaa duma maanaam nga tas fépp xoolal nga tas fépp bëgg bëgg di jaay ni dangaa dog di wane sa tuñ wane leneen lu dul tuñ li néewi du foofu rek lii métti du foofu rek lana waral ko jabar ja paas daw si ngir forate sa yaay foog ni yaa moom nit ñi saa tey dëgg na ak yàqamti aadama foog ni yaa moom nit ñi foog ni yow daal lu la lu la soob def naan ay ay ay yow Wally Seck dina dina xas Omaro mi ko amal njëriñ di di di di nekk porte-parole am ngir benn imbécile ay bu dafa am yoo xamante ni sax. logique mais moom nee na baal na Wally Seck soxlawul mu ko Wally Seck kii lan la amal ban njëriñ la apporté Wally Seck ba Wally sekk di baal ak ñàkk a baal mooy fen moom moom moo wër di wax di fen moom moo dem ci Wally te ba te ba léegi seetlul gis nga ko togg ak Wally une minute bu dëgër wax ji yëpp da ngaa ñëw def nii de. même même muy sinap sax si déggoo li ma la wax nee naa la Wally Seck bandi la. te farawul ak moom déggoo yaaram yaaram ñun ñun duñ ay dof. yor sa écran di taxaw nii di wax comme man yi may def nii xam nga yomb na li may def nii yomb na di taxaw nii film taxaw naa ratatatatat mbelelelelel c'est facile gis nga affaire yi amul xaar amul ma dem te ñëw waaw kuy jaay dof-dof lu daal ne da laa yëpp dafa am lu mu acca amaroo daal mille pour cent ah, waaw xale bu ci yabaate. yëpp ay mag wër di fen dafa am importance le fait que tey gis na dóore ouz dafa am fu mu am ak Sénégal gii mën nga door ni sax après mu baal mais fële ne Allemagne bu ko fa dóoroon tamit amuloo dégg nga amuloo dégg dégg nga dégg nga aadama ko wax mën na fa créer problème est ce que loolu tamit yëpp jarul jarul kii di waale wala sekk baal euh, dóoru ko Baye Zall dóoru ko Baye Zall amul lu mu ko waxul fii. te pourtant nee nañu ne nekkoon dóoru ko dóoru ko day day day duul nekkuñu. non daf ne jour bi ñoom ñoo nekkoon nee na day fen dégg moo ngi day fen da gis Baye Zane ànd ak moom. non Baye Zane ak Umaru. ma tontu wala doo ma tontu. maanaam tontu gis waaw da ànd ak moom. moom gis ma ko koo gis. Baye Zane ak Umaru merci. kooku nga gis kam gis da ko ñuus bu gisoon keneen da koy noq moom ki mu gis rek la jot a gis de kooku noq ko mu arrière mu gisoon ñeneen ñi waroon na gis ñeneen. moom xam na moom moom xam na sax li tax mu daal fenn rek def ay pas arrière daaw làqu parce que nee moom bu ko neexoon bañ a génnee information bi kenn du xam ndax mook Umarou xeex nañ. neex naqar yi dañ koy yëg noq gi ñu ko noq day feeñ munu ci dara yow suturaaloo nit ñu lay sutura Umarou rek. nga bañ a wax ñus gim la ñuus ba mu war a def annonce. ba ne yee mbay en son excellence <laughs> Waly Balago Seck bëgg naa. waaye nga laaj ko waa Omaro bu ñëwee day woote conférence de presse buy wàcc aéroport nga wax mu wax noq yi mu ko fa njëkk noq lay njëkk a wax avant ko def la lay njëkk a wax. nga naan nangam sàngam yow Wally dalaa soxlaa dalaa soxlaal dara ba nga naan ay jéggaloo daa wax lii Omaro waxu ko dara tous la ko waxut na rek la yem moo gën ama ay lii lañ ko wax xul dëgg de kenn dëgg la waxut. dëkk bi fen ak sosal fen nit ñi foog ni yow loolu waaw mu problème ak kenn mu problème ak kenn daal ku réew gis ku la gën a réew rek ku yaru gis ku la gën a yaru mais tout nag tout bul ne dóore bu fekkee da nga naan ay tout sauf dóore dafa mel ni ay laal tout sauf noqee ki dañ ko ñuus dañ ko duma ba saw tubayam loolu il faut mu laaj yow yow góor amoo ful la ci sa bopp ñu ñuus la nga daw jëli jigéen. kan ku jëli jigéen. <laughs> eh Ousseynou cas il faut nga leeral parce que tey jii. jëli cas bi yaa ma gën a xam sax. <laughs> kii di jaay neex. dañ ko dóor. jaay rey taat. mu dem jëli jabar ji. <laughs> ñàkk fayda ko man gis naa ko daal mu jël mu jël mu jël gis na naan Omaro ngi ne Baye Zale ak nii mais gis ma daal mu taxaw ak Wally Seck gis ma mu taxaw ak Omaro gis ma mu taxaw ak Baye moom laa la bëgg a wax yow gis nga mu dend ak kenn naan kii ngi nii. gis ma ko wax ah, dëgg yàlla waaw mu ngi dëgg yàlla nag. na dend ak di naan ko kii ngi nii. am na ñu waay. aco alors buñ paree dañuy li nga xam ne ni moom tamit temps yi defoon na fi coow ou seen mbokk artistes yi la. waaw ah. yaa ngi na wax sànq affaire de bad buzz ak yooyu noonu mais bii tamit jàpp nañ ni. affaire de bad buzz si diggante Amina ak ki nga xam ne ni moom lañ tuddee maanaam moo nekkoon jëkkëram si biir euh, série boobule gannaaw bu coow li rëyee coow li bu mu jógee Ousse yaa ngi ko njëkk envoyé nag. Mm-hmm. xam nga yow kàkkan nga. Mm-hmm. ko woon. <clears throat> su ma def émission taj pare moomoo. Mm-hmm. bul ma dugal. moomoo boo gisee ay cas. wala lu xew ci dëkk bi da nga ma koy yónni man ma gis lu xew ci dëkk bi dama la koy yónnee. Ah, moo tax ma la bii yaa ma day day mel ni man rek a lay yónnee yow yaa ngi may yónnee moom moo dañuy yónneente. ut laal mos a yónnee yow ban kaa laal mos a yónnee. bëri na. waaw yow. Mor Mboub Cheikh Sadibou Abdou euh, ñoo ngi di nuyu bu baax a baax Mor yaa ngi yaa ngi tooñ ku bëri problème. kon. Mor mu ne affaire Amina bi est-ce que Ouz avant ñuy déglu maanaam audio bi. bu si mhm. am bu si aada moo def. Mhm. est-ce que bad buzz jënd lii. le fait ba nga dem ñu dem ba tuumaal affaire dañ njaaloo bad buzz tamit jar ko Ouz sérieusement day dem ba yàq say der. maanaam bu. fekkee ñaar sax moo si gën a maanaam xam nga ñun waxtaan nañ ko fii. non boo fekk ma waaw ak Feuz waxtaanee nañ ko fii. Mhm. wax ci diggante jigéen ak góor ak sutura ak personnalité ak nga sekk ak nit parce que ñoom bu fekkee ñoo wax ci ñoom ñoom ñoo ko yóbbee Sénégal ndax ñoo def mbir mi bu fekkoon audience nga bëgg ci sa série wala nangam sàngam pour am ko ñàkk nga ko de moo jaaxal. ndax yéen duñ leen seetaan. man man xaw ma laa xam sama bopp. waaw duñ leen maanaam du maanaam du caaxaan duñ leen seetaan à 100 pour cent ni ngeen ko bëggee woon. gis nga sénégalais loo leen jox te muy pire bi bété bété ñëwee dañ ko consommé. amul bad buzz. infidèle dañ ko consommé. amul bad buzz. xew-xew dañ ko consommé. amul benn bad buzz. Babel dañ ko consommé. amul benn bad buzz. Arémère Thiaba dañ ko consommé. amul benn bad buzz. dañ ko consommé. foofu laa mën ma taalal nga mel ni géwél ma du ma géwél. waaw yooyu dañ ko consommé te amul yi liggéeyal rek. Mm. polygamie dañ ko consommé. ayta dañ ko consommé. kër kaaw dañ ko consommé. bu nga def statut démb boo dee boo dañ koy consommé. incha allah mu tudd. zaman. dañ koy eh, consommé eh, eh, entre nekk si jàmm ak salaam. ñëpp dund ay jàmm ak lii rek axiru zaman la. mais day bàyyi lii du axiru zaman ak koo xamante ni président président bu toog war a def cinq ans defagul un mois ngay kaas axiru zaman la. mais dañu bàyyi ngir yàlla ñu ñu. non non non ma zaman la. président bu war a toog cinq ans defagul un moins passation service jeexagul nga taxaw di kaas naan activiste da war a doon dakas bi la. war a nangoo taxaw nangoo taxaw ne dañ laa tëddee nga am doom ci biir sëy nangam sàng def ko jox ko dëkk bi yëpp. ku nekk def ci analyse. Mm. ngir rek diggante jigéen ak góor ak nan la nga def ko pour buzz. axaru zamaan la mm-hmm. mu ngi noonu nag te xam nga ni moom Fama Kese Kéemaan Vision waa Kéemaan dañoo doy waar Serigne Moodu Serigne Moodu Fama dafa garaaw baal ñu ah Fama Kese waay Fama Kese waay Kese Kese nu ñu koy taggee sax Kase Kase xamoon naa ko Aliou Kase hmm. Kase baax xaaral rek nga ne ko Fama Kase rek Aliou Kassé ndey Ndeye Kassé mi ma gëj a dégg Fama Kassé Fama Kassé rek ambiance dool ko rek ne ko Kassé Kassé peut-être moom dina mën a tàgg boppam alors nañ dem déglu Adamo lu mu wax si affaire parce que moom tamit gars yi ndax ñoom nañ sax ba def Adamo pour jox ko affaire yi naka carrément que euh, dañu bëgg maanaam affaire bi jàll heureusement que Adamo moom bii moom amoo loo ko wax mu leen carrément moo duma dox sa affaire de bad buzz parce que boobaa Sénégal yi ma jéppi alors nañ dem déglu Adamo daal di ñëwaat ci cas nga xamee ni Amina def na ko ak kii di jëkkëram mu doy waar trop si c'est bon. te instant bi xale daal dinaa la publier ci Facebook maa ko a bandi. dama bëgg mu jox ma sama doom fii laa koy waxee ngir waa Sénégal yëpp xam ni. salaamaaleykum gaa yi salaamaaleykum gaa yi yéen Aminatoo ñu leen de yéen yéen a tooñ seen bopp ana ñi nga xamante si nii lu ne yekk nañ ko ndoy di saaga ndayam ci commentaire yi ñii di yërëm Amina bu ngeen gisee Adama waxu ci boobu ba tey gis ngeen Adama wax ci kaa bu am Sénégal Adama da koy xam si lépp di teg ay preuve bu ngeen gisee Adama waxu ci ngeen waroon a jàpp seen bopp mais yàkkamteel duul bëgg kaa ñii ci mën lan njëkk a ñëw ma ah, xam nga fan lan commencé ba di ëmbal vidéo ëmbal bi kii bi ba may génnee wi mu di ko nàmpal lan njëkk ñëw ci man ne ma waaw nii ngay waxee nee ngay waxee wax ma ay wax yu garaaw ci man lan njëkk a ñëw ma ne leen du ma ko def ndax mu série bi génne dañ may xeeb dañ naan ma aadama ab duulkat la def naa ko fi ba tàyyi ñu ne ma ab duulkat nga ñëw nañ ci man mais bañ leen a yàqal moo tax annoncé wu ma ko ndax bëggumaa yàq seen din mais ñi ma woo ci suuf ñu si mel ne Babacar Diaspora ak ñeneen ak ñeneen nee naa leen séeri la dañuy see série te léegi mu génn mais ngeen topp ji di saaga ndooy ndooy ndayam du góor gu baax waaw acca mu ngi noon kàddu yi daa xaw a ñaaw moo tax ñu coupé ko foofu alors Ouz yow en tant que acteur di di ko def duma ko def de ci concept bi mais mun nga xam ne si benn concept waaw xam nga acteur da ngay lancer benn mbir ci benn concept xam nga lu tax mhm. tey mun nañ di créer benn mbir mhm. comme sa maag yoo ñu miin ñu wane ñu ñuy xeex mel ni luy jàppante ngir lancer mi Ngaaka Blindé def na ko fi ci kilibam ah gis neen ko fi ci kilib bi kële booy bi tey woy te mën a woy nii rek te sew Baye gis neen ko fi gis nga loolu nim mu mhm. loolu dafa carré clip bi ñëwee rek dañoo xam ni lii la gis nañ ko fi ci démb gisee yaa ngi comprendre. mais yooyu tamit ak non non da may da da nga déglu dafa am yoo xamante ni da koy gis xam ni bad buzz la ci ci ci ci artiste laa lay wax nag waxuma la comme ça kuy gis nii nii nii rek comprendre nga. man benn naa xam ne defoon nañ ko mu jàll mooy bu mooy bu bambale bi. mooy bañ ne Bambaye day takk Big euh, Maman. man xamoon naa ne man xamoon naa ne takku ko. non loolu xamoon nañu takku ko la fekk que tey jii nii. ma xamoon xamoon naa ni clip la. waaw voilà mais dama ne jàll na si Sénégalais xam nga yow peut-être mu nga nekk si milieu bi. waaw mais comme ça euh, tey jii nii la plupart dañ jàppoon ni Sénégal yi ba dañ jàppoon ni maanaam loolu dëgg la mais bat buzz genre bat buzz yi bat buzz yi xam ne maanaam sa sa der ngay. yaa ba pare ba pare ba pare da ngaa woo site internet. toog te site internet boobu moo koy def da ko toog. comprendre nga xam nga ñee ñee tax ba léegi leeraluñ dañoo def nii capture sànni comprendre nga après ñun ñu dute gaa yi ne ci mais kay da ngaa toog da toog carrément mhm. ñu laaj la nga wax wax wax wax bàyyi kon yow de fen fen loo ay nit yaa ko bëgg kay ñoo fen fen loo ay nit sa xarit ñoo fen fen loo ay nit après ngeen doog a jël seen munoo maanaam munoon na demee ne gis nga tey bu fekkoon dañoo wone Amina ak waaje kenn mu mu mu da don ci benn salle mu jour genre coow yaa ngi comprendre après de gars dañ naan teeku quoi ñu ne acca nañ xool mais lii ni ngeen tuumalee seen bopp dafa ëpp. théâtre yi léegi dañ commencé ngaañ yu bëri na tous est-ce que waroon xoolaat seen teewa seen seen seen toogaay. dañoo war a. xolaat xoolaat seen seen koy waxee sax seen Amina Kase xam nga nuñ ko tare Kase Maabo Biramu Kumba Njaay Almaabo Yaasin Jaal déggal lii Almaabo Yaasin Jaal dégg naa si benn wéy loolu faama war a defa ni suñ toogee yéen kaas baal fu mu toll nii théâtre bu génn day def coow infidèle cœur brisé euh, bété Sénégal ci boppam boo bëggee dégg-dëgg xam nga lu ñuy seetaan wax ju vulgaire ak taat yu rëy. non non wax ma wax ma moo tax moo tax ngeen man man dama leen la boo bëggee seetaan boo bëggee seetaan. théâtre nii nii nii nii man maa la ko wax sama baat ci kaw demal nga replayaat daaray ko ci seen théâtre yi passé nga seetaan théâtre théâtre moo maa yàq moo tax ma ne la te te te jàppal ni dina gën a yàqu de. ma ne la te jàppal ni dina gën a yàqu fii ku fi se ku fi génn nii ñuy joué parce que dañoo dem ba toll foofu gars yi kafatuñ ci. non non boo boo boo série seetaan la. Ousse wiiri wiiri mu fi ñëwee amul wax bu vulgaire amul dara Sénégal yëpp ko seetaan bu commencé <coughs> mbedd bi naan teg ñëpp koy seetaan. léegi luñ léegi léegi wiiri wiiri nga wax. Mhm. ci lañ lañ nekkoon. ci lañ lañ nekkoon comme. ci amul rek. waaw mais vulgaire wu maanaam ci amul de maanaam déggoo li ma la man waxuma la maanaam damaa bëgg maanaam ay thème. koy amuleen benn thème lu amul. ma moo tax ma ni la wiiri wiiri thème mu amour la di amul ñëpp ko mën danga may déglu rek. ci fi may waxee. waaw daa ma déglu bu baax pour mën a comprendre. yaa ngi comprendre hmm. xam nga tey bu fekkee dangaa ngaa jëli nangam sàngam lu ci mel ni bete bete. Hmm. lan la tem la temu mu lan. géwél géer tëgg ñaaño parce que ñun ñoo koy dund ba léegi te dafay des. waaw loolu amul léegi da gis ni moo tax ma wax la. da gis ni maanaam ku ci nekk daan dañ la laal. kon li ñuy wax dëgg la dañ laa laal moo tax nga koy focus yi waaye tamit taat yu yi ak beauté ba moo tax ñu bari di ko seetaan. maa la wax lii maa la wax lii. maa la wax lii talent dafay amati. yow kañ mënul séduire nit koo xamante ni bu la gisee ci lii laa nga leen war a sax duñ ko bàyyi xel ñoom ñu ngi xool sa forme bu mool ak ku sol yër sëru Bob di dox Bob Marley naan ba fa loo sol jaar ñëw yooyu daal <laughs> loolu daal fu mu ne nii moom wax dëgg fa yàlla ak ku ak ku say lolo ba ca kaw def ko biberon di ko jox nit ñi ñooñu la seetaan de mais nga génn fi naan. nit da ngay xam sa bopp àddon seetaanuñu la ku weddi laaj ustaas yi di jaay waraate ak ñii di génn di jaay série dégluwuñu leen nga naa man dañ ko wax te dee yow ñi lay xas naan de leen wax wax ju normal bugguñ loolu waxuñ dëgg ñoom ñu vulgaire ak di wax lu bon lañ bëgg ñoom la ñuy seetaan saagakatu nday yeeg wax lu bon ak ñi xaawi suutu di wane taatu jàmbur ñoo ëpp followers ñoom la ñuy bàyyi xel duggal feneen ak feneen ustaas yi ak ñiy wax ci diine ak di fexe nga correct lijjantiwuñu leen tamit buñ nax suñ bopp li am rek laa wax. waaw non tey moom d'accord yow foofu moom dama si noonu nag. foofu moom d'accord yàgg ngaa d'accord ak man di bañ de. ma lay xam nga ni dëgg la de Sénégal gii moom moo seetaatal li ma lay wax. xam naa ni nga naa léegi yow yaa ngi daan seetaan clando bu mustafa Moustapha waaw tout tànk tout tànk clando waaw mais boobu amul tem amul wuur amul dara am na sens mais pourquoi yéen est ce que du maanaam yéen dafa nànk rek ous dafa nànk léegi ma ma xam nga xam nga ah, man man non xam nga sax ma ñëw de xam nga man mi la man mi la ciblé waaw Moustapha mhm. xam naa li ma la wax léegi doo bàyyi ma posé sama question barkaati démb boo njaay li ma naan dafa garaaw mhm. am na benn kii bu ñu doon def ci thème mhm. benn télé di ñu ko laaj man maa nga ca woon faa ay dara ak ñenn ñu def ko xam nga lan lan doon ci code de la route affaire yi ni ñu ko deferee pour nangam sàngam mais faale wuñ ñu doo gis sponsor doo gis ku la épaulé du ngeen gis télé bu ko takk parce que xale yu moo nekkoon sa taat jugul dégguñ déggu dégguñ wax ju vulgaire dégguñ lu neex nekk da am na fooxee jaar comme ko ñoom loolu lañ bëgg maanaam ay xale yu mool taat yu mool voilà léegi pourquoi yéen wut ñoo xam ne am na ay taat yu mool am nañ xale yu mool teg leen ñu jàll message bi loolu c'est facile message yaa ngi jàll non message boobu du jàll yow bete bete message baa ngi jàll parce que am nañu xale yu mooy yu fa nekk. message yaa léegi nag sans dépend nag xam nga nit ki li ngay seetaan yaa ko xam. li ngay déglu it xam am na koo xamante ni tey bu toogee di seetaan lu ngeen moon moon day déglu kàddu ya kàddu ya lu mu neex ne xoolu ko am na koo xamante ni déglu ko moom ka moon lay lijjanti. Mhm. comme yow parce que waaw man moom assumé na parce que nit ñi dañoo bëri te ute wuñ ku ci nekk am nga sa gis-gis am nga sa xoolin am nga sa déggin lu nekk yow ni mu lay arrangé ak ni nga koy dundee am na. noonu la demee munuñ ci dara booy muy télé yeeg muy feneen ak feneen defatuñ loo xamante ni ni ni ni ni ay kii la xamalu ñuy ut mm-hmm. ku ko waxte de ñàkk ko waxte dee visibilité assure mu noonu alors fu ñuy fu ñuy fu ñuy terminé la mu nekk nouvelle bi nga xam ne nouvelle bi trice la jóge si nga xam ne nii moom moo nekkoon kii di euh, Virginie ñu gën ko xam euh, si <coughs> atu je crois que ne la tudd en tout cas Virginie la ko Sénégal yi gën a xamee gannaaw bu mu euh, posté ci compte Instagram moom ne toute am goûte euh, goûte à la vie goûte à la mort il y a deux ans c'était toi maman aujourd'hui c'est toi papa mu nekk li nga xamee nii maanaam di wane ne kii di papaam papa Ali Ndior génn àdduna mu nekk papa mu nekkoon papaay kii di euh, Virginie ñu koy ñaanal bu baax a baax yàlla xare ko àjjana si barke hmm. Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nekk ay nouvelles yoo xam ne métti na trop trop tamit Euh, ñoo ngi koy ñu ngi ànd ak moom si métit bi ñu si mel nii maanaam euh, Kiné bokk na si biir yi di xam si Kiné Ndiaye am na beneen xale bi nga xam ne tamit moo nekk si série euh, Belle Famille moom tamit koy moo postewaat na ko encore une fois mu mel ni daal xam ne métti trop trop. Mm. comme ni ñuy wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bakam inna lillahi wa bu ñam dund dina ñam dee day mas dee wax dëgg fa yàlla c'est normal man maa ngi koy masaw bu baax baax baax ndax euh, nag euh, xëy na am na lu jot a xew sunu biir ndax Virginie googu wax dëgg fa yàlla yaaram mhm. bañ koy tourné na man tourné naa ci waaw tourné naa ci mhm. tourné naa ci Virginie bu baax a baax a baax ñu daan sekkit ay plateau mhm. euh, fu ñu ko waxee rek sama xel yi day demaat ci sama waaja muy moomu waaw moom mi bokkoon it ci Virginie ci première saison bi mm-hmm. moom it làqu mm-hmm. wax dëgg bokk na ñoom ay jotaay daal mm-hmm. te bu dee waajuram <coughs> wu góor xëy na xamuma ko woon minu ma waaye waajuram wu jigéen jot naa ko xam ndax nag liggéey na fii ci di Mborodi waaw def fa it lu am solo it ñu daan bokkandoo plateau yi même bu dee day nekk ci lii ma nekk ci lee wala kii nekk fee wala kii nekk fee Euh, wax dëgg fa yàlla dañ ci doon nekk ñu ngi koy ñaanal suñu boroom saa baay bi xaare ko àjjana te yéexeenu waaw na fekk yaay booy ba ci àjjana yi firdawsi yu muy lëmbee ñu ngi ko koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax moom it naan ko muñ rek ko ko war mm-hmm. ndax nag xalaxal moo xayaat suñu boroom daa bind dee doog a bind dund te moomoo daan naa la ko wax fii fu mu ne nii ñun ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di dox ci àdduna bii ñun ñëpp man mii di wax ak yow nii xaw ma ndax émission bii lu bees bii ñuy def nii ndax man dinaa ko àggali xaw ma de wóoru ma biru ma ndax su ma génnee it bu dama ko àggalee it est-ce que dinaa ñibbi suñu kër mm-hmm. loolu it wóoru ma mm-hmm. ndax suñu borom rek a xam ay mbiram nan la koy doxalee ci jaam mm-hmm. kon dafa am yoo xamante ni moom moo nañ ci concentré wu bu baax a baax a baax gis nga nit ki nay nay wàcceel boppam kaamil di fi daawul boppam di defal lépp boppam ndax dëkk bi mooy li ma la doon wax rek axru zaman mooy li nga daan ma wax dañuy tourné ma ni la li tax ñu war a tourné axiru zaman di nga ci gis lu doy waar ndax na Kéemaan Vision ñoom ci loolu la ñuy dox te Serigne Modou gaynde gi borom Kéemaan doomu sàmbaraaka ji moom dafa xam àddina te dafa jekku itamit àddina te teg ko ci suuf xool ni ngay defee ngir jël nit ñi indiwaat seen conscience ci yàlla suñu borom ndax fu mu ne nii moomoo ku demul si yàlla yàqal nga sa bopp ndax lu neex neex naqari fa nga jëm hmm. dee dañ koy def allah xal gën a bees lee fi am mais gën a métti amu fi hmm. xam nga ne métti le passé wul sa ñaari hmm, la demee mënoo ci dara suñ borom la ak i mbiram kon nag euh, dañ lay ñaanal yaay wooy Euh, yal na la yàlla gën a yokk doole nga am xolu muñ gën la jibooleeg sa boroom kër baax a baax a baax muy Cheikh Moustapha naam mhm. waaw yàlla sàmm leen daal aar leen moomoo ñuy rafalante maanaam mbir mi nañuy jël suñuy mbir di ko rafetal mhm. ci saa su nekk ay temps nga gis euh, yi di xew ba ci kër yi danga koy gis euh, nga bokk nit ndey ak bàyyi mu yor lii kii yor lii kii yor ñu naan la ñu naan ñu taxaw naan ko sa liggéeyu nday la kon kee ndeyam liggéeyul te bokk ndey ak baay. te ak lu mu yàq société ak wax jooju sa liggéeyu ndey la ngeen bokk ndey ak ñu tiim sa rakk ndax yor na as 10 000 yow yoroo dara ñu taxaw naan ko sa liggéeyu ndey la. am yoo xamante nii nañ ko bàyyi xel moo teg ko ci suuf. bàyyi dof dof lu gi ñuy def maanaam suñ borom dafa bind te yemalewul moomoo suñ borom bu la bindal bu nee doo am million dundal million an munoo fexe ba am million parce que newul mooy am ndogalu yàlla ci jaam kenn mënu ci dara tey jii moomoo sàcc bi dugg suñu kër di sàcc suñ borom bu ko doon soob ma koy gis waaw moo tax comme ci soof weer da lay weer kon lu mu def fii lu am rek loxoom ma nga ca mu amul ay nañ bàyyi yàlla fii yàlla bàyyiwuñu ko ay non wala ngay wax ak ni maanaam nañ ci génne yàlla pour la ñu ciy génne yàlla. te lépp di commencé. waaw lépp di moom ngay wax naan non non non buñ débat ci lii bu ñu debaa ci lii moom nañ ci génne yàlla génnewuñ ko ci pour la ñu ko ciy génne tam amal ko sàkku ko. yow xel xel mi ngeen di dem bay bay jël seen xel di ko di ko di ko di ko wili paande di teg loolu loolu yàlla suñu borom la ngeen naan nañ ci génne fii amul luy ñoo ñu ciy génne yàlla munta ne lu am moom la bu weexee moom la bu ñuulee moom la nu mel moom la kon duñ ko ci génnee dañuy ñaan nag yàlla suñu borom defal ñu tawféex yàlla nañu yàlla dimbali rek bañ am mujj gu rafet mujj gu rafet képp képp képp képp képp moomoo moo jara ñaan moomoo matuma motoo keneen ak keneen ak keneen motul suñ bon gii mu waral mbaaxu kilifa yi kon yal na leen fi yàlla saxal yal na leen fi yàlla bàyyi yal na leen yàlla aar yal na leen yàlla sàmm moomoo mhm. bu ñëpp baaxoon bu ñëpp baaxoon mhm. àdduna utuñ fi dara bu ñëpp baaxoon mhm. leneen ak leneen ak leneen du fi am moomoo demal màkkatal mukaram gii ba nga yàlla nga fa demit yéene naa la te nga fa yóbbu koo fa yéenee yóbbu moom moom yàlla la ko yàlla defal mhm. ndax taalibe nga te am nga yéene ci say waajur loolu yàlla na la ko yàlla defal luñ la wax màkkatal mukaram gi bu ñuy julli kenn du tëj mhm. Sénégal bul tëj demal julli ji bañ a tëj sa alal yow doo fa fekk sa bopp yow yow yaa jékki-jékki naan kii man la kii kii ñun ah, tamit ay caaxaan yal na yàlla dolli jàmm ci fépp man de man de man son problème mooy waa Paris bu ñu waxee ne dañuy gagné Barça man dina ma jaaxal de ah. <laughs> Paris Barça. dëgër fit passé wu loolu. Barcelone de mooy moo koy dóor moom. ah. Barcelone day dóor. yaa wax waa Paris yow yow ku fekk sa dëkk yow dóor la yow ku ko fekk dëkkam di ko remonté. nañ réglé rek loolu benn équipe la muy Real. Habib Beye de waxoon na leen ko. ah. Habib waxoon na leen ko keroog. waaye ci ci ci plateau bi ci plateau bi avant match bi de. Mhm. Paris ku nekk di tam mu ne leen attention Barcelone. yéen a ngi wax rek ngeen foog yi ci jar ngeen. attention Barcelone man dóor mukk mukk nga bëgg ko ñëw fes nga bëgg ko ñëw fekk camp nu di ko gay. Barça la tas la. nekk nekk si problème. waaw ñun bu doon lu yeexee. Mhm. Real waaw ñun lépp mën nañu ko. waaw mais Real day toog. Real moom day mënul nekk. pare na ci Ligue des champions bi de. fii lañ ko wax de koy waxaatee. baax na. dinaa ko dóor Sidi. waaw baax na fekk dëkk baax na waaw baax na. Sidi fekk la sa dëkk naroon la rey. nga am sens naan. waaw toogul foofu loolu jarul wérante. baax na euh, islam. yàggul dinañ toog fii incha allahu rabi waxtaanaat ci. tey ñoo ko expliqué kon. mani bettuma. xaw man musuma expert mais boo bëggee day. bettuma mais mani la jeudi. Hmm. dinañ toog fi mani la mani la du courage. waaw ah, kon baax na man histoire laa lay wax. man xam naa observa man man xam naa observation laa la man xam naa observation laa lay wax dama ne si Thieliss bu ñu ko jëlee 2016 bu ñëwee bu ñëwee daf ñoo dóor daf ñoo dóor maanaam dëkk suñu dëkk bañ demee dëkkam lañ ko dóor euh, ak kan kan kan moo ko defaat sax. Catalunya. am am na keneen am na beneen équipe bu defaat loolu am na beneen équipe bu ñu dóoroon demaat dëkk waaw kay Bayern la Bayern moo ko def moo gagné Ligue des champions 2013 2014 ñëw Real <coughs> Real éliminé ko biir dëkkam 2021 Chelsea moo gagné Ligue des vingt 2022 Real fekk biir dëkkam moom tamit gagné ko 2023 bu fàttali ne City moo gagné woon dëkkam lañ koy fekk incha allah gagné ko. merci mm. beaucoup Ouz. dootoo ko defati. Euh, Islande ñu ngi leen di bu baax a baax wallaay Real Madrid bu baax City incha allah 3 3-2. 3 moom tey moo ñëw fi tàmbalee seet. Islande yow Islande gisoo lu mu wax Adamo nee na Adamo 3 de soixante et Bébé aussi fu ma ko gis dinaa ko déet bu rey. dóor ba ba lu fetal déet. Islande bàyyi leen rek bu dóor ba lu fetal félicitations. Islaan bul topp bool bi bul topp dóor ay balu fetal baal na rek Bas Ndiaye dama lay nuyu. non balu fetal moom bu mu ko dóor dama lay woo ci ruq nii nga beru ma ñuus la ba nga dul. wala nga def ñëpp ñoo di ziar bu baax a baax merci beaucoup. kontaan Islaan daal lenn rek la wax moom mu naqari ma ci commentaire yi muy 3 2 yi. Real Madrid va battre City. 3 2 yi après prolongation. loolu wax. après prolongation moom dafa gën a confirmé waat Islaan mi sëñ la wala mu doon. waaw kay Island yow ma dégg nga léegi nag ñoom Adama ñoo ngi wax naan da leen di dóor ay bol fetal ak ñooñu bu leen ko dóor baal leen rek yow bàyyi leen rek après Ousmane <laughs> yow Ousmane xam naa bi ngeen bokkoon équipe ak nee na bébaras sa jour quoi kii bébaras sa sax bàyyil ma ñooñu waay nee na mu ngi koy wër Italie cinq jours ba léegi gisoo ko bu ko ay tapet lañ boo gisee ñu xoolal buñ la sax déranger làmmiñ lañ am dañuy wax rek amuñ fit ñàkk fit a tax ñu toog foofu di wax di moom ñu yor ay compte privé ñoo yem di ay tàppet lañ merci beaucoup Islam dañ jox demee même heure ngeen ñëwaat ñaa koy indiwaat yeneen bagage yu bees daal di koy waxtaanee bu baax a baax euh, Ousse mbaa nga tàggatoo borom boroom kii xam axu zaman axiru zaman déet ngi ni borom axiru zaman axiru dama ciy joué moom ma ko waaw ba léegi yaa ngi axiru zaman kañ man xaw ma fu ko sëriñ Moodu xalaatee kéemaan gi daf maa yéem sëñ Modou dooma sambrak ji dafa poté de mais axiru zaman lu nar a dóob waaw lu nar a dóob lu nar a garaaw yow di nga yow di nga xool sax di nga xool sax am na benn am na benn sëy am ba fay tasaat te Sénégal baa ñu fi xel te hmm. ba mu bëri caw que ñoom ñaar dañu doon wax boo xam ne tas na fi une semaine la am hmm. ñaari services yu mag du saaneex ak. ah sëñ Ngañ. saaneex ak sëñ Ngañ. sëy laa wax sëy. sëy sëy diggante góor ak jigéen mu tas ñaari célébrité ma une semaine ndax coow lu bëri moo tax mu tas. Hmm. waaw am na keneen ku may dégg tamit hmm, leneen takk na de. loolu suba mu leer suñ bopp. non yooyu moom du ma ko <laughs> bu ñu wàccee nii dina la bu caméra <coughs> na benn tamit moo tamit mais takk na waa ji takk na ko. Hmm. Mhm. ok c'est bon waaye daal nee takk na ko. tur bi. yooyu tur ci suuf la. Ousse doo bëgg dugalee nii waaye ñoom dégg naa takk na ko moom. Hmm. waaw bu takkee sax jabar ji créé woon na ko ak problème mais après fi mu tool nii léegi jubóo nañ. waaye hmm. takk bi moom am na moom. Hmm. Mhm. kon takk. kon takk ay eh, takk daal. ca takk yëpp après dañ ko leeral bis dinañu ñu jox dig daje incha allah demain incha allah dans votre émission lu bees. à partir de 16h gars yi ñu siy waxtaan ak yéen lépp li nga xam ne ni moom moo doon actualité d'ici là maje beaucoup rebanan caaw